jàmm naan. xam ngeen ni guddi gi guddi Seydina Muhammad la. man daara waa waaye li ma jaaxal mooy danoo tàmbali rek Abdou Aziz di way sëñ Babacar. man daara woo ku ne da nga am sunu dund dama xam ne kii ñoom sëñ Babacar bu ne ko moo tax ma wayal ma man daara woo. ma jotal la yóbbante waaw Abdou Aziz Ndiaye mii toog waaw nee na ni nga seddalee xolu njaboot bu gàmm gi weesoo dina la yóbbu Màkka nga ziyaare ji Seydina Muhammad muy dama lay laka Màkka kafa nee na dangaa bëggal ñëpp ci guddig rasulullah te ba tey gisagoo rasulullah waaye nee na bu gàmmu gi weesoo dana fexe nga gis rasulullah mbokk yi asalaamaaleykum bu ngeen ma fay nuyoo maa ngi ñaan na ku nekk akolaat ki mu dendal ne ko félicitation eh nangu. nangu ne wax moroomam félicitation. mbokk yi guddi gii nu nekk mooy guddi gi gën ci guddi yëpp waxtu wi tembe ci la Aminatu bintu Wahbin doon yëg matu mbokk yi waxtu wii ci la sangu àddina ak àllaaxira waaye bu a gane àddina te mooy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi ko bëgg caméraman may ma tuuti ndax man damay xàll waxtu wii ci la Amina doon yëg mat yaa ngi saa li waaj a matu. kan la doon matu. Muhammad Rasulullah ki gën ci li yàlla bind. muy sayyiduna Muhammad. fis. oh. bi sayyiduna Muhammad naree judd. bëccëg dañu yàlla dimbali ma mu judd ci sama heure. guddi demandé yàlla. ne ko dimbali ma mu judd ci sama heure ndax bu juddoo ci guddi guddi dana mën a tiitaru ci bëccëg bu juddoo bëccëg bëccëg mën a tiitaru ci guddi yàlla ni bëccëg duma la ko jox ne guddi duma la ko jox dama koy jox fajar ngeen séddoo moo tax na Seydina Muhammad gane àddina fajar moom rek lañ mës a ëmb ba àdduna sosoo ba tey mu nekk ci biiru yaayam kobas yaay ji ni ko yaay mu ne ko waaw mu ne ko heure sàngam lay judd ku dul bi am na mu ne waaw mu ne ko waajalal sa bopp fajar lay judd waaye attention demal nga seet si ku ñuy wax Safa moo la war a réewle Amina ñëw fekk Safa toog mu ne ko bul teel a sa bunt lu mu guddi guddi danaa la fëgg ndax heure lay am doom mbokk yi Amina nee na yëguma mettit samay tànk diisul samay tànk diisul sama xel teeyul xoromuma dama jékki-jékki rek yàlla yónni malaaka ni ko jëlal sa laaf bi raay ko ci biiru amina moom la sama am alaaji Malik naan janaaxa tayrin nafa maa hëla min jusud جناح طير نفى ما هال من جسمي سيدي الحاج مالك نينا نبي بنكو أمي بمو ولا جدو يلا يبن ملاك نكو راي بيرو أمينا مو راي بيرو أمينا سيدنا محمد جدو carte bi xam ngeen nu muy demee. Seydina Axiri daa jasad kull wara. mani Sénégal gépp li nu Wait

loolu nekk ku disponible. nee na Seydi El Hadji Malick waliyu la. nee na Seydi El Hadji Malick moo yëkkati drapeau diina ba ca kaw. Ah. bu ñu la laajee ki raxul sunna benn yoon mooy Seydi El Hadji Malick. ba ja da wa muy taw ci yoon. wa man lii. wa man lii bu Alaaji Malick demee fan la ñuy jëlantee. bi tadrasil kitaabi wa musanadi. koo xam ne moo ñuy jàngal téere yi fiqh mantiq usul bayaan Alaaji Malick la. wa man lii. wa man lii Alaaji Malick dem na. bi badil fiqh. koo xam ne moo ñuy jàngal fiqh. war naxu. di ñu jàngal naxwu. mantiq. di ñu jàngal mantiq. bayaan. di warshi. ku ñuy jàngal warshi. ba juree. ku ñuy jàngal juree ji. wala shaare. di jàngal waay. waaw luy tuuti ndax dafay bàyyi borom sax la yàlla bépp mantu bu jëkk bi Serigne Babacar Sy man zaaruhu bi salimi tantina la monaa en tant que taalibe Sëñ Babacar